leneen lu ñu fas yéene waxtaanee muy mobilisation bi waa F24 fas yéene woote ci aljuma ji ngir rek yenn jafe-jafe yi ñu gis ci biir réew mi ñu dakkal ko ba mu dakk am nañu élément bu nga xamante ne nii war nañ ko xool léegi léegi ñu fas yéene ci ànd ak du jof ci kanam tuuti ñu dellusiwaat. président boo xam ne yow. da ngay dem février. luy sa yoon ci vraiment ay tripatouillage de la constitution. moom dañuy xaar lépp ci moom ba mu des. di changer constitution

ci lay dem li ñuy xaar ci moom mooy li ñu wax mooy vraiment mu dalal réew mi génne stress bi nga xam ne permanent bi mu bëgg a dugal réew mi loolu kenn mënu ko nangu six mois yi nga xam ne moo ko dese ci bopp réew mi mu liggéey lam ca war a liggéey bu ko defee vraiment en février mu teg dossiers yi dem noppalu wàcce lépp bàyyi politique politicienne bi def li nga xam ne war na koo def février incha allah mu organiser élection yu jaar yoon bàyyi ñépp ñu participer libérer xale yi euh, bu ko defee Sénégal continuer yoonam ci wàllu démocratie il faut rester prudent dafa yàgg ci njublan tàmm njuuj njaaj génn ca noonu yéen xam ngeen ne du yomb kon restons vigilants xam na ne yëf yi jeex na léegi ñi ko xañ la mu bëggoon def ñooñu la bëgg a jëflanteel parce que yéen xam ngeen ne miix sedd la nit la kuy ruminer colère te li mu jàpp du ko bàyyi moom day considérer boppam gaynde mais moom Macky Sall rek moo xamul ne sénégalais yi pare nañu ci moom y compris ñi nga xam ne ñu ngi séq ak moom wala ñu nekk ak moom ci benn langue parce que suñu liberté yi mu jóg pour entraver parce que am na police parce que am na gendarmerie parce que am na une partie des magistrats yu nga xam ne nangu nañu nekk bras armé ñooñu nag léegi ñun sénégalais yi ñoo war a jug pour wan leen suñu doom yi ñu tëj ci kaso yi te wéeruñu ko fenn il faut mettre un terme à cela ku ne gis na week-end li xew ci investiture bu Pastef bu président Ousmane Sonko ku ne xam na ne Macky Sall noonu lay doxale moom Macky Sall buur la jàppee boppam e on a l'impression que seen stratégie maintenant mooy jël suñu force de défence et de sécurité yi di leen fooye gis ngeen kër góor gi fu nekk ñu teg fa ay barrières policiers yi taxaw fa ak gendarme yi mu mel ni sabar bu tas kenn mënul dem kenn mënul dikk uniquement pour indi jafe-jafe ci benn doomu aadama boo xam ne deful dara lu may taxaw jàkkaarloo ak Macky Sall ne ko ànduma ci li ngay def bokkuma ak yow gis-gis bi ci mujj di El Malick Ndiaye dégg ngeen une histoire absurde audio boo xam ne benn sénégalais bu nekk Italie moo ko def tudd Mor kase ñu jàpp El Malick ne ko yow audio boobu yow yaa ko def jàpp leen ne li dal El Malick mun naa dal kenn ku nekk ci ñu li dal biram Souleye ba mu wax la mu wax dellu am grandeur ak ngor ne moom mu ngi jégglu ci kàddu yi bu ñu amoon njiit boo xam ne day jàppe boppam ni ko yàlla def bi Birame Souleye waxee ne jégglu na ci Sénégalais yi ci la waroon génn ci kàddu googu c'est dommage boo amee di jëflante ak nit koo xam ne xamul lu dul fitna ak rapport de force situation yu mel nii rek lay indi jërëjëf euh, Modou Diouf Assane comme ni ma ko waxee tout rek manifestation la bu ñu fa fas yéene dëgmal ci aljuma ji waaye boo dégloo Mimi ak euh, ki nga xamante ne nii moo ji Bougane Gueye Dany ban gis-gis ngay am si seen euh, waxin bi nga xamante ni nii ñu ngi koy wax vis à président de la République du Sénégal. waaw Bougane de ànd na ma moom si ñaari point yoo xamante ni yu am solo la muy El Euh, li mu wax ci moom ak lii nga xamante ni wax na ko ci euh, Biram Sulay ndax Biram Sulay moom wax dëgg yàlla ay mbiram lu waroon a mën a jeex na koo xamante ni si penc mi la taxaw wax ñu ne ko war a wax mu taxawaat ci penc mi ni maa ngi jéggulu wax dëgg yàlla dañ ko war a jéggal bu fekkee nit ku jéggale nga Mm-hmm. loolu moom waroon nañ see mën a wane exemple bu rëy rëy mm-hmm. bu El be bee nee nañ lii la. daañu ci ñëw léegi léegi sax. ah bu El bi mu wax voilà ak Biram ok mm-hmm. kon daal wax dëgg yàlla lu ñu waroon a mën a jégal la beneen bi ñoom waa f maa ngi leen di nuyu. ay nit ñu baax lañ samay xarit lañ xam naa nuyoo bu ma ko tegee si loxo saa wolof ñëpp daañu si jot. waaye maa ngi ñaan euh, préfet na leen autorisé seen doxu ñaxtu àjjuma bi maa ngi ko ñaan préfet ndax xam naa duñ ci am Hmm. comme que duñ ci am ndam nag préfet autorisé bi man dama daan taxaw naan ko du autorisé du autorisé. mais man lan moo tax duñ ci am ndam. non non préfet dina def li ma ko wax. non il faut man xam naa préfet daf may diglu. Ah, président Macky Sall daf may diglu d'accord son Assane préfet daf lay déglu seen manifestation. nga ne duñ am ndam saa ma ne lii du am. Hmm. si mbir mu demee noonu yow da gis ne du am. Ah, tey jii bu ma dugal de man musuma laa wax. ba fekkee waxuma la lool dama ne bu fekkee yaa ngi may siifur. waaw lépp koy def bu ma laa nii lay demee noonu lay demee ba ma fi toogee ba léegi mais bii man damay ñaan préfet yow loolu nga wax foo ko bii damay ñaan préfet mu autorisé ko ndax bii duñ si am ndam ndax la Mimi Touré ak Bougane nañ wàcc si terrain bi dem wax continuer li ñuy def te bàyyi F24 gi ñu mooy F24 gii hmm. kuréel la goo xamante ni lu ñu jafndu bu kiyee ñu jafnduwaat ca leneen bu ñu wootee nag Sénégal yi comprendre bu ñu wootee nit ñi amuñu temps fi mu ne ñu ngi si nawet bi ñu ngi ci leneen organiser ay organisation doxu ñaxtu nu fee régler dara. mais doxu ñaxtu kenn du ko organiser nekk si biir kaso man la doxu ñaxtu kenn du ko organiser président Macky Sall lijjantiwut loolu dem ñaan ko si njekk sax. wala nga def leneen ci nam la neexee sax moo moom moo tane mu bàyyi leen mais doxu ñaxtu mënut a tax mu bàyyi leen doxu ñaxtu mënut a tax nangam doxu ñaxtu bu ñu organiser mënut a tax. mu def lu mu wërtale mais doxu ñaxtu yee tax mu renoncé Euh, si candidature am. Ah, dox ñaxtu yaa loolu ndax joxu ñaxtu. ban doxu ñaxtu la ci ban la si. jeunesse beeg waa F24 waaw bi laa wax bu jeunesse bi nga wax mais bu F24 bi lan la fi réglé. bu jeunesse bi mooy réglé mais bu F24 réglé wu doxu ñaxtu kenn du ko réglé buy buy de doxu ñaxtu bu xamante ni organise nañ ko mu réglé fi dara man musuma koo gis te du fi am kon préfet maa ngi lay ñaan nga autoriser leen te seetaan leen. te ngeen garder image yooyu. d'accord jërëjëf Alaaji naka nga gisee euh, waxtaan bi ak mobilisation bi ñu fas yéene woote altuma. waaw d'abord euh, li njëkk mooy di ci wax ni lu am solo la. Mm-hmm. parce que dafa am ñu daan génn di wax ak a xeex euh, ngir yi jëm ci kanam ngir liberté yi jëm ci kanam ngir ñun ñi toog nii tey ñu mën a toog di wax ñu téye leen ne leen loolu mënta ne. lii gor nag mooy ñun ñi toog nii di wax hmm. ñooñu ginnaaw téye nañ leen ne leen noppi leen hmm. euh, yënguwaat ngir jóg waxal ñooñu dafa nekk loo xam ne lu am solo la hmm. donc moo tax lii F24 def lu am solo la parce que le fait que ñu toog di ci communiquer di fàttaliku sunuy ñoñ ñi nga xamante ni bii ñi ngi ci biir kaso yi te muy yow Assane di man mii ak ñu bari ci senegal yi partagé ni leen tax ñu yóbbu leen ko foofu méngoowut ak li nga xam ni moo war a am parce que ay nit lañ yoo xam ni. Mm. duñu nit ñu violent du nit ñoo xamante ni bii lenn dugalu leen fa lu dul bëgg sa réew. Mm. ba yow mii képp koo ci gis am ci moom coxeel ndax da lay bir ne la kii kat li ko dugal ci kaso bi lenn rek la mooy nit koo xam ni ku gëm réewam la. Mm-hmm. nit la koo xam ni ku bëgg kiiwam la saa yoo toogee lii waa vingt 24 di war a def chaque jour yow yaa ngi koy def. Mm-hmm. yaa ngi toog di wax ñu nekk ci kaso bi nañ leen libéré. Mm-hmm. lim yàgg nga cee lim ñu bari. Mm-hmm. kon lii même boo njortu woon nar naa fiasco. da nga war a sensibiliser nit ñi xamal leen ne leen. lii de warta fas fiasco. wallaay. yow loolu mooy li la war. tàccoog mbiib léegi lañ fay def tàccoog mbiib. non non du tàccoog dara lu am solo la. Mm, tàccoog mbiib am na parce que ki tàccu dafa am lu mu wax ba tax ñu tàcc ko ki ñu mbiibal dafa am lu mu wax ba tax ñu mbiibal. mais am lu ko solo lu ñu war a def ñoom. non loolu rek lu am solo la. parce que ñëw yow li nga li la war rek yow li sa mm-hmm. lenn mooy sa rôle. mooy sensibiliser ñi comprendre ñi ko déggee comme ni nga ko déggee. Mm-hmm. nga xamal leen ne leen man de jàppee woon naa ko nii waaye dama gëm ni mm. lii mooy yoon nga jéem a fexe ngir loolu réussir. Mhm. bu fekkee ne yow am nga lenn looy dute ne moo tax du réussir nga xamal ñooñu ne leen. Hmm. lii dafa war a réussir. Hmm. parce que luy tolloog plus de ay sept cent personnes yu ñuy wax naan ñi ngi ci biir kaso yi. Hmm. tey jii ñooñu seeni mbokk rek bu ñu ñëwee. dana fees kon jàpp naa ne pour mu fiasco euh, dana doyaat parce que ku ci nekk war nga yëg ni kat. man am naa mbokk moo xam ne moo tax may dem. bëri nañ kay te loolu bés ñooñu demee rek mënul échec réussir rek la mën a def. Mm-hmm. lii ñoom ñuy def nag lu leen war la. waaw parce que xam nañ ni tey ñoom niñ koy taxawee nii di wax ëllëg si biir. Mm-hmm. leneen mën na dal ci seen kaw te bu boobaay da ngay bëgg ku la ko defal. Mm-hmm. loolu mooy li nga xam ne mooy li am solo. nañ ñaan yàlla mu ñëw ñu autoriser ko ci jaam ak salaam. nit ñi dem. ci jàmm ak salaam wax la nga xam ne bii mooy seeni doléance di ñaan tamit autorités yi dégg leen bu ñu leen déggee tamit fekk si leen ci seeni bëgg-bëgg Sénégal mën a jëm ci kanam. d'accord mm-hmm. jërëjëf Alaaji am na solo.